ajaratu euh, Ibrahima Kobar euh, junj nga ko sax balaa ñuy dikk ci procès bi di fàttali ne dàq nañ ko ba le 8 incha allah tey lan ko jàppoon euh, boo xoolee ci dëkk bi boo ñëw teg gi mu def ak oto yi waroon daw daw waaye tamit li jëm ci wàllu Jakarta ak ñoomin seen ci wàllu koom-koom yow ngay yëngatu nan nga gisee maanaam heure bu nu waree def dem procès rek. dëkk bi tekk googu mu naan tekk ba activité économique yëpp taxaw ban jàngan nga ciy def est-ce que jar na ko nag parce que boo xoolee tey 10 heures xam nañ li xew est-ce que jaroon na bloquer économie bi à ce point. waaw euh, sëñ Omar. man dama dama jàpp ne franchement dama jàpp ne ñi nu jiite tey il sont pas à la mesure de lii xew quoi parce que su fekkente ne da nga jiite ay nit. gars yi di wax 17 millions de sénégalais nga jiite leen. Mm-hmm. ngeen war a waxuma sax nga ëpp leen xel mais nga mën a tolloo ak ñoom ay conscience ba nga xool lan mooy euh, comment dirais-je lii lii am am solo ci euh, réew mi nga koy def parce que bu ñu xoolee tamit quand même procès bii nii c'est vrai c'est un procès bu nga xam ne ne dañ ne diffamation la diffamation nag dëgg la c'est un délit mais délit bu ndaw la war a nekk bu nga xam ne ne warut a tere moom la mineur voilà délit mineur nga xam ne warut a tere liggéey en tout cas toute une population. mais mu téye Sénégal ba mu mel ni kon am na lu ci lu ci lu ci lu ci maanaam lu nekk ci suuf daal. te nit ñi di koy wax di koy ruumandaat di wax ne c'est un procès politique. te yaakaar naa ne képp koy xalaat euh, di nga xam na ne wax dëgg yàlla c'est loin d'être un procès euh, banal et simple comme ça rek. lu tax nga wax loolu. waaw li ci li ci lalu yëpp dafa bari parce que boo xoolee si ginnaaw. Euh, Ousmane sonk ñëpp xam nañ ne en tout cas c'est une euh, révélation te am na ñu ko topp nag ñu ko topp bari nañ trop euh, topp ko topp le parti Pastef man damay faral di wax ni ne Pastef c'est pas un parti simple comme ça mais c'est un état d'esprit mais c'est une c'est une révolution révolution nag nit ñi bu ñu ko waxee dañuy jàpp ne pour un renversement brutal la war a nekk par la force déedéet révolution mooy lu nga xam ne dañ ko teg pour mën a def une révolution économique une révolution sax sociale et et morale parce que Sénégal li fi yàqu bari na tey fii suñu jikko yi sax dafa yàqu trop xëy na mënuñ cee xuus bu baax a baax mais tey boo jëlee si sur le plan moral rek éthique ñu ne par exemple ñu ñëw bëgg ko ñu ñu daxan ko si procès bi ñuy wax nii ñu ne procès bi euh, bi ñu koy commencé un procureur moom moo ko enrôlé woon procureur boobu ñu jël ko yóbbuwaat ko fële mu karewaat dossier bi. pour l'appel waaw. waaw man loolu franchement man xaw ma dara si si si si justice. Mm-hmm. mais dama gis ni loolu vraiment il nous manque beaucoup de morale et d'éthique dans ce pays là. Mm-hmm. man damay faral di wax ne la morale est une denrée rare en politique. franchement loolu man mënuma ko comprendre ñu bëri noonu lañ koy jàngate mm-hmm. waaw donc donc loolu daal vraiment doy na war trop. tey nag ah tey nag économie taxaw na effectivement. Euh, procès ba le 30 bi. le 30 mars bi effectivement gars yi nee nañ ay milliards la ñu perte est que jaroon na ko. ñu ni diffamation la ñu ni léegi condamné nañ ko ak deux mois de sursis avec sursis ak deux cent million deux cent millions sax ça reste à bon ñu bàyyi ñu ñu ñu jàpp ñu bàyyi loolu xëy na tey Ousmane Sonko moom moo waroon a wax ne mankat kat liñ ma teg nii nanguwuma ko damay def appel. mais ñoom ñoo jëlaat def appel un procureur qui s'en mêle à ça loolu politique dong la loolu politique kese la bon ñu def appel tey aussi mu répété waat man dama yaakaar ne Sénégal moom répétition moom mooy moom mooy moom mooy lii gën a lii gën a liñ gën a faral di gis quoi waaw donc euh, sur le plan économique daal ñun ñëpp vraiment tere nañoo liggéey tey boo jëlee rek néew nañ koy waxee euh, ñiy def cag-cag Euh, jakarta maan yi tey ñoom xam naa ne ñoom tey ku leen laajoon dëgg-dëgg procès bi lan la ci wàllu économie danañ wax ne ñoom nermé la ñu voilà donc euh, man daal wax dëgg yàlla li ma gis mooy affaire ay caaxaan dong la waa nous sommes un dans un état nag bu nga xam ne ne ñii nu jiite moom man xaw ma dañuy xalaat xaw ma dañuy foo xaw ma lan la ñuy def parce que li ñu waroon tax li ñu waroon a taxawee moom mooy nan la ñuy fexee bu ñu développé nan la ñuy fexee ba ñi nga xam ne ñooy mbay mbayu dër mi yaa ngi dégg tey seen soble yi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi si àll bi di kenn jënd ko mm-hmm. yaa ngi dégg seen yeneen mbay yi mu ngi ci àll bi kenn jënd ko man démb rek laa dem nootu mais boo demee foofu da ngay da leen di yërëm parce que tamit seen production yi pare na mais kenn du ko jënd ñu nekk fii di wax affaire politique mm-hmm. pour rek euh, faagaagal benn adversaire politique San macha allah <coughs> waaw man kilifa gi li ma bëggoon a waxtaan ak yooyu li ma bëggoon nga ñëw parce que Omar léeg-léeg day ñëw fii jàmbat euh, muy jàpp gi nga xam ni ñu ngi koy jàpp waa Pastef ca foofa ca Kër Massar ginnaaw bi manifestation yi amee ba nëgëri euh, ñu boole ko seen maire ba seen maire ba ñu ne ko ciix aussi tamit jàpp ko muy maire Pastef ba déggoon naa am na ñoo xamante ne bi sax ñu ngi doon wax ne problème yu bari mi ngi ko doon réglé ci wàllu koor yeeg affaire sociale yeeg affaire yooyu te fi mu toll nii dafa mel ni lépp bloqué na nan la Pastef ba di doxee foofu ca Kër Massar ak jafe-jafe yooyu nga xam ni yéen a ngi koy am te yéen nag Pastef tamit foofu ca Kër Massar euh, bu ñaan prip rek yéenay njëkk ca njëngal ga yëngal ga moom foofu moom bu ñee yëngal moom day saf sap est-ce que nekkul tamit looloo tax gars de ñii moom il faut ñu jógal leen. waaw euh, saa maa ngi lay maa ngi delluwaat di lay nuyu. Mm-hmm. di masawu rek euh, monsieur le maire bi Bilal Diatta ki nga xam na ni suma collaborateur la parce que man tamit ci marché bi laa nekk nekk euh, délégué di marché ay nomades yi mm-hmm. euh, donc namm nañ ko trop ci collaboration bi nga xam ne ñoo ngi ko doon def si marché bi kon ñoo ngi koy masawu bu baax ci li nga xam ne ne se su nekk arbitraire mm-hmm. détence nañ koy waxee détenu politique dong la parce que ay opinion la doon la doon la doon wax Sénégal nag yaakaar naa Euh, bettuñu parce que Macky Sall moo waxoon ni il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Hmm. tey sax yaakaar naa expression amatul. maanaam kenn amatul sax expression bu muy wax parce que ñëpp ngi noppi parce que boo waxee dara ñu jàpp la xëy na man sax su ma génnee ñu jàpp ma mais bon amul problème l'essentiel moom mooy li nga xam ne suñu suñu suñu droit la danoon ko defendre danoon ko wax danoon ko defendre donc euh, Kër Massar effectivement le parti Pastef mu ngi fay dox bu baax. Mhm. franchement mu ngi fay dox bu baax te yaakaar naa comme ni nga ko waxee. Mhm. Euh, ñëpp a ngi koy ràññee. Pastef nag dafa fa yàgg dox et puis dafa nekk symbole foofu. Mhm. parce que 2018 ñëpp xam nañ ne le premier martyr que euh, Pastef a enregistré euh, Kër Massar la jógee mooy Mariama Sagna. voilà Mariama Sagna après benn meeting la amoon mu dese ñu ñu rey ko fa ba léegi élucidé wu élucidé wuñu son son son cas loolu tamit est-ce que ci mitin ci meeting lañ ko rey moom moo organise meeting bi si euh, le fameux terrain de Yekini la mm. foofu la woon en 2018 mm. ah. moo tax sax gars yi bi meeting bi pare gars yi ñu ngi def euh, comment dirais-je comparaison ñaari meeting yi 2018 ak bu bu passé bi nga xam ne dépassé na ko mille fois mm-hmm. bi affaire bi pare euh, fauteuil yi nga xam ne moom moo ko abaloon kii bi Euh, ñi ñi doon ñi doon voilà ñu ñu koy delloo ñu koy delloo ca lañ ko rey daal voilà donc mu nekk lu nga xam ne c'est triste ñun nag ñoo ngi demander à ce que justice soit faite hmm. ba léegi amaguñ ci dara ay doomam ñu ngi am na yaakaar naa ñetti bant yu nga xam ne ne Pastef moo leen jël en charge ba tey jii jii jii ma lay wax nii depuis boobu seen seen scolarité seen lépp ah Pastef moo ko jël en charge waaw loolu am na lu ma ci xam ndax man am na lu ma ci lu lu lu ñu xam ne chargé woon nañ ma ko ci ci ay jamono. Mhm. ñu ko ñu koy dox. donc. Euh, lu waral ñu ciblé leen Kër Masar jàpp gu bari gi. waaw loolu moom la saa bëgg a xam. nga Kër masaar quand même bon c'est un cas particulier peut-être du ci Pastef rek mais Kër Masar dafa nekk benn genre carrefour sur le plan géo géographique euh, nit ñëpp dañ fay ñëw tout le temps te dafa bari aussi euh, vandalisme loolu bari na fi te ku wax euh, nu mu tuddoonati ku wax manifestation rek ñeneen danañ si rax du waa Pastef rek peut-être su affaire bi amee ñoo koy def c'est vrai peut-être xale yu Pastef yi bon comme ñëpp sur le plan national dañuy gis ne bon dinañ revendiquer seeni droits danañ gis ne dañ leen di tooñ ñuy résister n'est-ce pas mais euh, yeneen mën na ci mën na ci aju yeneen mën na ci aju voilà mais de toute façon euh, en tout cas détenu politique yi jógee Kër Massar bari nañ te nag mën nañ ci ràññee ay xale yu ndaw yu nga xam ne ne yu tuute lañ il bon peut-être ñu nekk ay sympathisants sympathisants mais duñ ay ay ay militants yu nga xam ne am nañ ay carte loolu bari na ci parce que il ñu ngi enregistré 17 à 19. arrestation waaw arrestation mais ñu ci bari ay xale lañ yu nga xam ne ni am mën naa ci citer ñaar rek yu nga xam ne ni kenn ki patron dafa ko waroon a yónni mu dem. traversé côté fii fii nga xam ne foofu la kii force de l'ordre yi nekk ñu jàpp ko te loolu bari na ci bari na ci waaw bari na ci quoi. waaw man damay génn ak yow Kër Massar démb defe naa ni képp ku xool internet bi gis nga ko muy ay xale ah, wala ay xale yu góor yu nu wax ni dañu fekk ci ñoom ci benn kër goo xamante ni c'est inhabité ñu fekk ci ñoom ay cocktail molotov yoo xamante ni yu bari la euh, ma bëggoon rek ñu ne arrêté nañ leen cité nañ ci sax ay turu quatre personnes loolu noonu yéen yéen yëg ngeen ko. man tey laa ko dégg ci suba. Hmm. mais sànn ma me surprend pas parce que parce que bu ñu fi tuddee force spéciale te kenn waxagul ñan la nañu waxante dëgg kenn lañ fiy tudd moom mooy euh, Mouhamed xaw ma euh, na Ibrahima Ousmane Kabili Diatta ñëpp xam nañ ni mu demee nañu waxante dëgg gis nga bu ñu nekkee dans un état qui se respecte man booy gën a nekk ndaw procureur buñ ko tuddee dañuy wax ni procureur moom mooy bàyyi xale yi ndaw yi mineurs yi noonu lañ ko daan waxee ba ñu daan buñ daan kii voilà ñu ala alalu procureur la parce que boobu dañu leen respecté woon mais aussi dañoo nekkoon xam nga gis nga yoon euh, justice yàlla moo ko moom mooy juste moom mooy juste te mooy justice kenn waru koo fooye mais da nga ne surprendre lu tax non bu ma ne surprendre ma mooy hmm. moo tax ma ma defal la ma defal la corrélation ak euh, euh, force spéciale ak commando yi hmm. waxuñ fi force spéciale un état qui se doté de tous ces moyens d'investigation mënuñ noo wax lu ñuy dégg xanaa ci ci ci ci ci ay ay ay ay kii comment dirais-je ay euh, déclaration wala ay conférence de presse lañ ko déggee. Mm-hmm. mais sénégalais yu bëri gëmuñu ko nu ñu waxante dëgg. d'accord mais revenons à Kër Massar euh, Omar mm. euh, dañ jàpp yi bari na foofu man bëggoon naa ñu dellu si ci quelques jàpp yoo xamante ni ci lan lañ leen fekk ba jàpp leen. dañ doon manifester ñu jàpp leen wala dañ leen fekk seen kër jàpp leen jàpp yi nañ la demee xanaa nit du toog jàpp njaamuram rek ñu ñëw jàpp ko. waaw jàpp yi yan lañ leen jàpp yi tey boo jëlee par exemple ku mel ni Bilal. Hmm. moom bi affaire yi di am nekku fi woon il était aux bi mu ñëwee il a constaté jàpp nañu ay xale mu dem brigade di s'enquérir de la situation ñu ne ko doo fi dugg mu dem loolu man fekkee naa ko boobu maa nga fa. parce que boobu ñu ngi jàpp suñu coordonnateur Ousmane Kébé ñu nekk foofu au niveau de la brigade mu ñëw fekk ñu foofu mu dem ñibbi ci ëllëg si mu def benn déclaration de presse peut ci loolu lañ ko jàppee. amul bon xam nga xam nga lu garaaw di défier autorité wala yooyu. waaw de toute façon man suivre naa bi mais yaramam dafa tàngoon aussi est-ce que mënu woon gën a dal aussi en tant que. waaw waaw mën mën na mën na nekk si waroon na mën a gën a dal parce que nous on a besoin de lui. ndax xëy na bu defuloon conférence de presse bi certainement gars moom dañ lay jàpp quand même di wut ay alibi di wut ay ay ay preuve mhm. mais bon peut-être bu loon déclaration bi mën nañ ko bañ a jàpp kon mën nañu wax ne mënoon na ko bañ a def mhm. mais man gisuma lu nga xam ne war na tax ñu téye ko ci loolu man gisuma loolu ñeneen ñi ñi jàpp ñu ci bari effectivement si ay manifestation lañ leen jàpp parce que manifestation ñëpp xam nañ ko manifestation depuis depuis depuis temps Abdou Diouf am na day am. maanaam population su fekkente ni ñu leen di teg neexu leen n'est-ce pas dañuy def lu ñuy lu ñuy tuddee par exemple résistance résistance nag su fekkee da nga par exemple munoo munoo munoo génn si mbedd mi waxee ko foofu. yaa ngi dégg force de l'ordre yi dañ lay dañ ay dóor ay lacrymogènes yooyu lenn rek nga mën a def. par une riposte simple et man yaakaar naa ne même même cocktail molotov yooyu ñuy wax noonu. yaa ngi dégg c'est pas aussi dangereux que leneen quoi. buñ ko sànnee du tàkk. cocktail yooyu loolu yàgg na mais mais lacrymogène yi aussi dañ koy sànni mu tàkk te dañ koy sànni à bout portant di ci gaañ ay nit. non xam nga no xam nga ne dafa grave non lacrymogène mais cocktail yi laa cocktail molotov yooyu hmm. gis bon xaw ma ko man xaw ma ko exactement xaw ma ko franchement. mais dama la bëgg a war rek ne. Hmm. Euh, c'est-à-dire normalement ay nit bu ñuy manifester euh, face à des force de l'ordre euh, am na ay ce qu'on appelle des de kii quoi des moyens disproportionnés yow nga xam ne ne yaa ngi dégg mën nañ ko utiliser yaa ngi dégg ay pierre ak parce que même même pierre yooyu noonu xeer xeer si boppam moo gën a garaaw. xeer tey bu dalee si bë dalee si bën moo gën a garaaw leneen. est-ce que euh, kiiwul parce que man damaa gis euh, ci kiiwu euh, Russie bi ñuy dugg Ukraine mm-hmm. waa Ukraine. xam nga ni si ay fetal la jor dañuy tiire waaye keneen di defar ay cocktail molotov ma ne waaw mais man cocktail molotov moom xanaa lu dafa garaaw garaaw bu extra parce que man affaire affaire daf maa jaaxal quoi ñu naan ñu ngi leen de waa waa Ukraine naan ñu ngi leen de xaar ak ay cocktail molotov ça dépend ci contenu bi aussi ah? Ah? xanaa loolu beneen kii la kon xanaa affaire yi bokkul en tout cas de toute façon daal ah. tey comme ni ngeen ko waxee nii dégg naa information di wax loolu mais man ça reste à voir gars yi nag moom dañuy ah. sos seeni affaire di wax lu leen ne en tout cas man man mënumaa gëm information yu jógee si ñoom wax dëgg mm-hmm. yàlla nag xëy na loolu xanaa xanaa leen kenn duma si jàpp <laughs> ah, maa moom sama sama ngëm ah, waaw xëy na loolu kenn du si jàpp man en tout cas gëw ma seeni wax moom man dama koy <laughs> jàppee comme procès boo xam ne tey jii ñun ñi xamul dara ci yoon mais démb ci guddi ku xaw a yow tuuti di xam ne mm. saa mi rek wax naan nañ da ngay xam dañ koy renvoyé boo xamee nu yoon di xaw a doxee tuuti procureur euh, gouverneur sare jël dogal naan nan arrêté lii cag-cag yi dawuñu ñu baare lépp ci dëkk bi des fois ñoom day mel na ñoom ñooy bëgg a mi affaire tiital nit ñi même affaire cocktail mën na ko 24 heures avant seetloo heure bu manifestation war a am Sonko war a dem 24 heures avant dañ koy génnee di doon fexe daal ba ne jàpp nañ diw jàpp nañ diw ak ceci ou cela même bu dee dëgg yenn saa yi moom nu ñu koy defee day dem ba yow nga ci am doute mu mel ne daa am li ñuy préparé yoo xam ne ñi ngi nekk biir Pastef mais yéen nan ngeen di def ba tey jii yéen a ngi wax rek jàpp nañ diw jàpp nañ diw mais yan pexe ngeen teg au niveau de Kër Massar pour que ñu mun a euh, libérer les détenus politiques. waaw xam nga Omar wax nga dëgg gis nga nguur gi tey boo xoolee ni ñuy doxalee ñoom fa mel ni ñoo nekk ci opposition parce que boo nekkee si nguur boo nekkee si nguur yow yaa war a fexe ba ordre public nekk yaa fexe yaa war a fexe ba dal am mais yow yaay créer ay contre yu nga xam ne ni kenn xamul lan la daal mooy comme li nga wax noonu rek. tey ñoom li ñuy def nii c'est comme si ñoom ñooy créer ay problèmes yu nga xam ne ne peut-être bon sur le plan politique da ngay créer ay problèmes pour wut ay solutions wala pour divertir les gens xëy na ils la diversion man noonu laa ko mën a gisee bon mais nun nag Kër Massar moom euh, ñoo ngi ñoo ngi en tout cas ñoo ngi jàppale suñuy détenu moom ñoo ngi leen di jàppale ci prise en charge ñoo ngi leen di jàppale ci leneen ak leneen vraiment mais bon en tout cas même avocat wutal nañ leen. Hmm? ma nit waaye loolu yëpp liberté da ko dàq. liberté dafa dàq. ñu bàyyi leen laa wax ñu dem seen kër ma ni loolu da koo dàq. ma ni nit ñu leen xañee seen liberté tey leen ma ni hmm. da nga ni yéen a ngi leen di dimbali di leen jàppaleeg yooyu. Hmm, ma ni waaye loolu liberté ñibbi seen kër da koo dàq. mais liberté moom liberté la ñuy la ñuy la ñuy sàkku. liberté kay la sàkku xam nga nit ki nag boo nekkee ak ngóor gu nga xam na ne ñoom il bafoue lee libertés n'est-ce pas bon peut-être mënoo utiliser benn moyen lu dul. li nga xam na ne moom mooy rapport force moo tax ñuy wax. non xam nga rapport de force moom xam nga tey fi ñu toll nii. Hmm. gis nga tekkaara gis nga tekkaaral bu ñu tekk nii. kii bi sonal ça leur dérange. et ça ah. c' stratégie. Hmm. voilà tekkaaral bu ñu def nii. Hmm. ça leur dérange et c' stratégie. est ce que yéen Kër Masar tamit yaakaar leen ni Auchan bi sonal na leen parce que dañuy gis ni Kër Masar moom saa yu manifestation di waaj a départ rek. dafa mel ni booy moom Auchan bi mooy seen cible numéro un. Ah. Ah. te te fi mu toll non xam nga est-ce que yaakaaroon ni tamit protéger bu ñu war a protéger Auchan bi tamit moo tax ñu gën leen a sonal. waaw mën na nekk gis nga même Auchan bi ngay wax noonu. ça hmm. ah. gis nga même bi ngay wax noonu. ça reste ce que du ay bandi sax ñoom ñoo ñooy ñëw pour cibler Auchan bi. Hmm. est-ce que du ay gis nga nguur gi moo waroon a. xool moo waroon na xalaat. gis nga hmm. gis nga Kër ma Massar gis nga Kër Massar. am na lu bari lu nga xam ne mu ngi fay xew ci wàllu manifestation yi nii mais gis nga waa Pastef ak seen seen organisation. Mhm. dafa leen échappé. Mhm. léegi nag man am na lu nga xam ne ne mën naa ko ci jàngat mooy c'est pas seulement les militants de Pastef. ne n'est-ce ñoo nekk ci affaire bi de. waaw léegi loolu dan la mën a nekk tamit Kër Massar ñu def fa mitin boo xam ni meeting bu kenn mënta wax nu mu toll te après dara amut est-ce que tamit waa Pastef bu leen neexee mbir yi dina leen échapper. parce que gis nañ fa meeting boo xam ni ba léegi mitin bu mel noonu amaatut te meeting boobu même ña fa seen portable doon sax dañ leen koo delloo da ngay gis ni for dañ ko di leen ko delloo donc loolu am na lu muy wane est-ce que tamit euh, nekkul nii dañuy wax ne ñii bu problème bu problème amut ñoom la mais bu problème amee tamit kon ñoom la est-ce que duñu yaakaar ni noonu la ñuy wax. waaw en tout cas de tout façon daal xam naa ne euh, euh, nu mu tuddoon comme meeting bi nga wax noonu. waaw. dafa am beneen ci beneen angle bu nga xam ne mën nañ ko jàngatee lii xew. gis nga meeting bu mës a am muy Kër mësaar muy euh, parcelle ak feneen ak feneen. Mm-hmm. yaa ngi dégg gars yi dañ koy teg si yoon. waaw ah. et et puis comme li nga wax bu dara war doon sax. dañ koy mm-hmm. joxe parce que acte patriotique boobu moom moo leen di animé. Mm-hmm. ci beneen côté bi nag affaire manifestation yooyu ngay wax noonu Kër Massar. waaw bon en tout cas nguur gi moom war nañoo gën a xalaat. lan moo tax jàpp nañ ay nit mais war nañoo gën a xalaat lan moo tax Kër Massar nekk benn bastion de cette résistance là. mais mais au niveau de Kër Massar wala au niveau du parti PASTEF sax laay laaj dem c'est pas la première fois ñu dalal fii ku bokk ci mag magi PASTEF magi PASTEF lan mooy seen rôle ci parti bi. waaw magi PASTEF. PASTEF il faut nga am caay. waaw waaw d'accord. <laughs> mais moom solu caay. il faut nga am na sikkim moom am na sikkim waaw am naa sikkim solo solo moom mais nag mais nag euh, gis nga mag i magi Pastef euh. comme son leen l'indique ay mag lañu mm-hmm. te mag dañuy wax jar naa bàyyi si mën naa bàyyi si am réew mm-hmm. euh, en tout cas boo xoolee magi Pastef yi ñu installé leen partout au Sénégal mm-hmm. ñu ngi def ay ñu ngi abattre un travail excep excellent boo xoolee Kër Massar ñun Kër Massar y avait beaucoup de problèmes dans Pastef mais magi Pastef am nañ benn commission am na am na benn commission bu nga xam ne ne ñu ngi koy wax par exemple euh, stratégie et orientation euh, ak waa magi Pastef yëpp ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ci boolewaat waa Pastef parce que ay mag lañ loolu lañ leen di xaar n'est-ce pas message quoi waaw ñoo loolu lañ leen di xaar fi mu nekk nii nun ak waa GPS comme comme cere ak meew. lu mu wax sax mburoog mburoog mburoog. Ah, soow mburoog soow bàyyi leen waaw comme cere ak meew la ñuy def. cere ak meew. parce que c'est deux générations. Hmm. mais c'est pas des mais c'est deux générations bu nga xam ne ne dañoo dañoo maanaam dañoo bokk presque benn gis-gis dañ daan wax ne conflit des générations dafa daan am. Hmm. mais foofu amu fa da ngay gis mag moo xam ne il a quatre-vingts ans n'est-ce pas di mën a waxtaan ak ku nga xam ne ni il a juste trente ans. Hmm. te dañuy ànd ànd bu rafet. day nekk sax sëtam wala doomam mais c'est plus dix des frères. d'accord Omar ah, waaw kon euh, émission bi jeex na délégué la ngay xanaa di leen sant di leen gërëm rek di nuyuwaat euh, maa ngi nuyu ki ma ànd fii muy Sakka euh, Ñakkaja Saña moom it moom mooy coordonnateur magi Pastef bu Foundiougne comme li ma ko doon wax rek Pastef c'est un état d'esprit moom il de Foundiougne mais ci Pastef la ñu xamante ba ñu nekk ay waay fi mu nekk nii kër Ousmane Kébé la ñëwoon. mu gungee ma ñëw nii. donc euh, pour dire kër rek euh, PASTEF comme la FLA c' est la fraternité. fraternité mhm. boobu nag ñu bëri dafa leen di jaaxal boo demee si prison yi nga xam ñi fa nekk ni ñu leen di taxawoo rek ni leen waa PASTEF di taxawoo rek. Mhm. dangay xam na ne macha allah. Mhm. noonu la demee ñoo ngi nuyu waa Kër Massar yëpp di leen di sant di leen gërëm. salaamaaleykum. ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, Ibrahima Kobor ah. bàyyi waroon nga ma laaj tuuti si marché bi aussi. Euh, sunu marché ak yow sama sa marché la. je ne pas. non temps bee jeex tàkk may naa la cinq minutes yu bokkul sa temps. waaw ah, léegi jeex na voilà léegi du ñàkk beneen yoon. ñu waxtaanee ñu waxtaanee marché bi marché bi moom lu nu jar a waxtaanee la kon di la gërëm baax di la sant. di la bàyyi yow tamit euh, nga gërëm sant rek. Ah, jeex na waaw ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ak salaam en tout cas ñoo ngi leen di suivre. Euh, man man man ci ci kii bi laa leen di gën a suivre quoi ci digital bi franchement yaakaar naa ne seen jomet moom ak seen euh, solution kii bi nii mm-hmm. ak bu Baara njaay bi mm-hmm. duma ma koy du ma koy rate mm-hmm. man même même télévision sax bu ma koy seetaan nii sama sama sama sama salle damay jàpp kii bi pour booster seen seen seen kii ah, di jàpp ci combat quoi voilà di jàpp si affaire ah, yàlla xam na ko nag te may may ñaan aussi ñëpp nañ def loolu ndax Euh, Walfadjri c'est la voix des sans voix moom moo fi nekkal askan wi quand loolu ñëpp xam nañ ko xam nga féetee ragal féete day. xañ wërsëg day xañ wërsëg nun du ñoo nangu ne dañoo féete waaw Walfadjri. macha allah nun les patriotes nun nangu nañu loolu. jërëjëf voilà donc ñoo ngi leen di ñaanal. Mhm. di ñaanalaat sëñ euh, euh, Sidi Lamine yàlla na ko yàlla. yéegee ci aljanna yu kawe yi yal na yàlla taxaw aussi vraiment lépp lu euh, maanaam kii bi yëpp entreprise bi yëpp yàlla taxawu leen jàmmal leen yéen ñëpp salaamaaleykum jërëjëf euh, Baye Niass ñu koy gërëm bu baax di ko sant ah, di am mbégte mu mun ngeen di seetaan aussi tamit si solution info TV ah foofu tamit aboneel di seetaan wax gaa yëpp ñu abonné ah di suivre bu baax a baax kon ñu ngi lay gërëm baax di la ñaanal yoonu jàmm xam naa ne jot bi mayu la ko waaw mais yàlla baax na yàlla na yàlla defal jàmm ak sutura. kon ajal kaddu gàngo ayca ñu ngi lay remercier bu baax a baax je rappelle que ni moom mooy Ibrahima Kobor nekk chargé comme loolu nga xamante ni moo di kuréel gi ëmb mag yi Pastef yi ñu ngi lay remercier bu baax ci disponibilité bi.